ya bamba doon muusa amu dem faaroona seeni mbir ak yooyele noona nee na keroog at doon jàng la fa taxaw ci kaw di rëy di fag dana ko sooy aamiru may waasiru sooy xutbu may xawsu dama lay sooru fekkoon bambay jàng saaru xasas ba ca fa arsil umma yi la ko jire te bamba daal di dem ko nekk maam faat jàngal ko ba sabi um jiyaat cër ya juróom ñaari bu nekk amu saar mu julli fay rakka saxal ko pataar roog la bamba sangi mbooleem cër ya mas la doxi lu fa bar ya fee la bamba toog bindal ko teere xaar perma bol bol xol bol xol ku ndey amuy teere bisub kalaam la ma batak paas kato ñu dégg sox yey tàkk kenn xamul fa waxtu wa muy tàkku la sox yey tàkku loola waral njàmbar ga mu ko bëgg te bamba naan ji day man faalo dara lim mag rijaal keroog la yàlla def ci sunu maam ceerno sopp fetal jiyaar ba moom ab xarnu te takku saan la sunu maam moor ant la xasu gonte poroxaan bi ñu daal di sama sa kala te génn sa daal koy yanu boole meew ma bu ñu demee jaa bakkun la ca xart soo see berndeel ko falan ko ngente neleen suñu nopp bi may wax waruma waaye rasuulu sa wax nan jamiru rahmaan ko jabal korom maam cerno ko su ngeen yi li fay xarnu guddi gu ñëw muy jàng tey wër néeg ba ba muy ayak biisu géej ga wal seen néeg ba géej bu walee ci néeg ba saroñ ca ba muy ayak bis kenn du xam ne ndox toxal maam Cerno ak Seex Bamba seeni mbir ndono ba fa bi tànkam ba Bamba ne fa jaar jaxañ tu maw yoon ne su doon ab dëkk Cerno yoon jëm si ci man ku suubu tagoo bul baay baa ku dut ku de cernu ibrahima mooy sëriñam bu ndaw awa tafiima te moomaat la njool ma daal di ñibbi kajoor son ci pataar moomat waay keroog ba muy dem dafa listixaarlu ñu ne ko ñibbil ren kajoor tam mbaarlu keroog la pencum ma daanu maam faati jóob wopp sëriñ bakaaru te mooma alla xaali ma anta ñibbi kajoor lat joor duna manant mboolem kajoor jiital ko def ko xaadi mu raw ko teew ak maadi mu boole kook seex antani den waani jox leen sëriñ den xuraani mu am faam at baay ba dal koy laaji jébbal ko bamba si xadaaji bamba ko jàngal liggéey la boole wan mbaam ndam bamba ko yor yar ko ci waxtu si xari mas la tàggoog moom li waxtu kibari mas la juuyoog Seex bamba mas fanaan fa dun fa suufa darba buy dem yor tatala kaag daramba ak seera baag daa ajadi saf laramba mas juum ba takbir ni maam faati ngir bëgga lekk mbaamu naan laayaat masula fanaan al du genn daaraja day rafle tey yelwaani ba xëy am daraja te yooya at la bamba ak maam Ceerno ak Seex Masamba Jóob di dox ba wërnu war nan Kajoor ak njaambur ak Bawal ngir bëgg am ñetti dërëm bay jaambur war nan Kajoor ak Bawal waa njaambur ngir bëgg am ñetti dërëm bay jaambur ngir booba naar bu ñu naan moo ko bindal ab bor la ca yanu téere nee ñu fatul axfaal ak rawdu faayixil limaalatil jalaal ànd na noog ma samba jóob ba dem saam amuñu lul fukki xasa boole mbaam nee ñu maam ma bàyyi seex mu di jigal moo ko joxan sëriñ ba loola ko jagal mbaam ma sëriñ ma samba sa mbak sëriñ tuuba saral mu teg ba demee ba tollu néegi wajja fa lañ fanaan sëriñ ba xatta wajja sëriñ wajja nga yor mbalaan nun tan di leen bi di nu roog waa xandam te bamba na ndax waxtu yi tàggoog ñoom jox leen ma laaj ko day waral juum sëriñ ba tàggoo joxuleen balaan ma yaakaar ja tas cer na sant waayam Seex Bamba ne su ko balaan ma Seex Ibra Faati la yemal maqaam Seex Bamba ne su ko balaan ma Seex Ibra Faati la yemal maqaama mbaa mu yem ak Seex Ibra Faal maqaama ñu mbaa mu yemoo Cheikh Ibra Faal maqaama jaramu ay kuréel di sëf qiyaama boobee ba tey maam Cerno Ibra Faal mas la tàggoo Bamba fi mu daat te lu mu am jox te lu mu xam te lu mu amul yéene ko Bamba te du ko laaj te lu ko laaj mu jox te lu mu soxla Cerno Faal ci faj ko jiwaay ma ne sula maqaamaam ak i nga lu dul bisil xiyaama ji waay ma ne fula xalam ak yi nga ne lam bisil déglul ma wax la ba bamba ak ceerno del see ne di ree maam ceerno naa si a bamba nu ngi reetaan dun fay mbor bi dinaa ko yalwaan si a bamba naa ko ku bëgg a cor sunu nga nay ga del ci yóbbuwaale si kiis te bamba naa ko ku bëgg a cortu nu siis nga naa ja del di yóbbu ale seg siis bisub karoog la sunu maam soxna coro jébbal sëriñ tuuba mbalaa ñu defi koro maam faati joob doon na keroog maam ceerno ñetti daram see bamba fay ba doy na karoog la bamba ma sa dem ca kër ga waa kër ga gépp naa ko bamba gor nga malaan ma moo waral malaan yu bari dërëm ya moo waral dërëm yu gore yi wëndeelu baa tax yi wëndeelu ba roppi laa ni am rek ca tànki nii bamba yaag maam cerno la watay raame di daw di korno banaar ba del see soo daani mu jox ko ñetti junni lit daani maam cerno faati jox ko ñetti téeméer sëriñ Masamba Jóob toftal ko téeméer karaab la gana xam na njëkk a fecc taxula mu jeggeew ku gëm du kuy rëbb day xiif ak mar di raam su fetele tànni du di mu taamu Bamba fetara ba cer na fees ko dofte ko togg ko ñëw reer ko mosandi leen te xam ne lii aw mban la mbana galaala gul ko junni ñay la ma wax la ma Mbàkke Anta faatoo magi Seex Anta borom ayaat keroog Bamba doon na Anta fi saa'irin wa baatinin diblan daana ko wax naa waa ji ñaari jan duñ mën a bokk asamaan dublan man Mbàkke Anta du ma so na Bamba toog ba so mooy sama Seex man Mbàkke Anta du ma so na bamba toog ba soone mooy sama seex ca yooya fan la daldi woppu faatu moo amee woon soxna jamoo ko yaatu njaañ la ko baay ba rab bisub àllarba bisub kalaak la ramb mbooleem mbar ba cam mooma at la xaalima mar ant yónni sëriñ baa ceer na ciw ngant ñu jaayi ab kaamin yem du nja jaar maam Cerno yalwaani xamul fu muy jaar ngir lamb yey gor tabare jaaxaan góor ñaak jigéen ña jaxasoo di jaaxaan Seex Bamba yéen fa garab ga di jàng la déglu ndënd mas la jàng jigéen ñuy wax jee moo fa romb nuy sëriñ ba daal di xam la mu moo leen fa toogal añ sarax leen ab lam doy maam Cerno yor ko moo gëm mooy ndey jeeyaatin ma faatoon dand ñu rab ko amdullahi am dand ca bamba nee na Cerno yaa koy ram ca bamba noon na Cerno yaa koy ram yow mal xiyaamati moom ndey jox Cerno sam jaay nan jaay kaamil ba kenn jëndul ko te muy mbindum Seex Bamba kenn yëgul ko jaay nan jaay kaamil ba kenn jëndul ko te muy mbindum Seex Bamba kenn yëgul ko ci yàlla laa ilaha illallah muhammadun arsalahu illahu salla alayhi lahu bisalaam wa alihi wa sahbihi lahman salla alayhi lahu bisalaam waali wa saabi lahlaami amaana kuy sewal ku rëy fa yàlla amaana kuy rëyal ku sew fa yàlla ba ñu ñëwee te amuñu idaaya di ñaari mbëri na bu seen wilaaya maam faati góor ko sarax saayi nopp luñ salnoo mu tudd nga tudd boppam ñu baala koog la ñuy jéeg nag balaan maam teer nu jokko baay ba fi riwaaya ñu boole ko la mi jeeg mi ak balaana maam teer nu jokko baay ba fi riwaaya ñu daal di jox soxna sa siidi bamba nee leen sunu noppi dañu yeneen ba te moomaat la xaalim ma maranta su ko pataar njaw makke mel ni jant moomaat mu daal di bawal di wal wali indil ayaatu ama sasa sin la faatu yi ji yàlla ñu rab ko deqale kilee xam ngilla wa radiyallahu anil xadim maha abii wallahi amin déglul ma wax la yow keroog miraas waa mbàkke ak waa kokki teew turaas keroog miraas ma bamba na leen cernu mooy sama wàll bu amee mu doy nu man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam Cerno doy na ma manit doy naa ko man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maam Cerno doy na ma manit doy naa ko guyennu xeetu ko ki baawaw mbàkke fi naa sa mbaaki dem ba mbàkke keroog la Cerno yeesal njëbbal ga te di li boole ga ndaw ga keroog la jaay bokk ga ak xam-xam ba ko muy saalix wali xam-xam ba keroog la bokk ga ak xam-xam ba ko muy saalix wali xam-xam ba dañ doon sunu maam Moor Anta ñu yokk ko Seex Bamba mi raw ab jant kamil ba maam Moor doon ne baayam ñu jox ko Bamba moo ki doomi baayam ba na leen nangeen ko jox borom saam ngir kaamil ba mag moom na leenu dem saam maam Abdou Khadir Baye Mbakke soxna moo ko bindaloon maam Balla Aysa soxna maam Abdou Khadir Baye Mbakke soxna moo ko bindaloon maam Balla Aysa soxna yeddoo ko rey moo tax ba sunu maam Balla gàddaay Mbakke sañ ci ngay wal yaa ko rey moom it fab kaamil ba jébbal ko ma mooranta mooy kaamil ba bis bam faatoo lañ ko jox borom saam bis bam faatoo lañ ko yóot yóot daam ñu jox ko borom tuuba fa taaxi njurbel bamba na leen leen ko ceeb nooy ma naa ko bis maqaama ibrahima muy dolli ay maqaama ibrahima gis naa ko bis maqaamu Ibrahima muy dolli ay maqaamu Ibrahima mu boole ko korong bu bum barkeelu nekk ku ñàkk sol daal di kiilu maam Cerno ne su ma masaa sol mbubu damay nango nangu ba summi mbubu ma xam naa ne ku denc mbubu ma fase koog bank yaa laytani ma sol ko ndax ma sënk an ma Bamba an leer Cerno ñu seeti aaj kamara ndar indi ko na jarno ko sant booba moo sëriñ daam bañ demee kajoor la benn sëriñ daam keroog la cerno yónni junni ngur boole yéen rey see bamba fii dugub keroog la cerno yenu junni ngur boole yéen rey see bamba fii dugub xam naa ne jëmmi nit ji koy malaaka mooy Cerno Faatiw tanaa musaaka xam naa ne jëmmi nit ji koy malaaka mooy Cerno Faatiw tanaa musaaka ba ñu demee ndar ba siyaare maam aas téye bamba ndar di laaj sax na fa ndar lil xaadir jilaani te lum fa sex cerno ko yalwaani te bamba ñaalaaj ko fa wirdul xaadir ngir bëgg a jokk ci abdul xaadir as naa ko toogal muñ te ma tàggu diggante muusa ak ku dor sakku as ko toogal muñ te ma tàggu diggante muusa ak ku dor sakku sa mbira demb laa la faggu moor sàmma tukulóor balaa doon sax yaa di juróom ñetteeli lawliyaa i yeera wa wirdoo fil alaahi wa saaminul xaadimu bamba ahmadu man misloo fil xarba laysa yuujadu keroog la bamba xëy na meng di waaji seeti kunti far na feng ya moomaat la toog fa ndar bay xaddi bay bëgga way ganaar bi xëy di raddi karaag la diisoo ak Cerno yoonu mu ne ko nan daal diriñaan tey tànku keroog la Bamba naan ci barkeb jiili naal daal di gis kuntu baate jiili rabbi bi jaayil mustawa wa mandari talla oo abli xuruuji min dari ba ba peeñi bëgga dem la maam aas daal di taxaw ne Bamba yaroon ñu faas gis naa la bii ngay bëgga dem ba mag te yaaraw soo daan saxal si mbag sa mooy sa ndimbal ci baatin mooy sa rawaan maam Cerno yaa din la bisub karoog la Bamba daldi fomm def yetti way jox ko wa Cerno jom bisub karoog la Bamba daldi fomm def yetti way na jox aas na jomm الدر والنفع من الرحمن ليس من السودان والبلاد الدر والنفع من الجبار ليس من الفجار والأبرار الدر والنفع من الواب ليس من الأهداء والأحباب إلى بيت لبamba dénkoon maam aas mu yor ko daal dina koy yéena am kaat keroog la aas jox ko fa wir du xaadir بإذن رب العالمين خالد كراغ لا بامبا جوخ جنم بمام آس منا كفلنا لك يا دي فراس أسنا كفلنا لك جور وغنار أكبا والسالم جلو بسمهار للا تخل بدام دمي جلو نجاي ñoom dalaluñ ko ana ko ndaamali di cerno faati fu mën a yem di taybul aayaati soodan suleymaan mu di tamkiriitu daf an wajjal ban mu ma daqiyoot jox fa mbalaanum seex abdu xaadir man jonne woon ci setu baayu taayir mu boole koog jàkki wa ak deram ba ak kurus maam aas goyoon si romba bañu ñu demee Mbàkke Kajoor la baay daam xarloo mbalaanu kañu naan sëriñ daam Seex Bamba doglu ko tubéy ak tuuru ci Seex Abdu Xaadir moo ko ngir barke nee na koroog ku sebu nekk ci alxuraan moom ko doon riwaaya moom la Bamba reere bisub koroog añe ko lil kabiir la ca mu jox maam Seex Anta ne ko nga barkeeloo ko yaa di jant bis booy dajeeg tubaab bi yóbbu ba seex di dem se mu barkeeloo mu daal di firdu fa firdu jox maam Ceerno ne moo ko sant woon moo yow ne na may mu am saada bila saqawatin bi xarxaada man njàmme mooma ko may fa daaru alhamdulillahi ma sant waaru déglul ma wax la bis ba bamba ñibbisee mbakke kajoor ak cerno faati ndaama se njafal ga jàpp cerno jiite daara ja seex ibra faal jébbalu ànd ak maharaja maam Cerno fam na soxna danaa ko jox sha Allahu Sidi Bamba la mu waxoon yàlla dogal na loola ci darajaay maam Cerno Faati Samba la mu waxoon yàlla dogal na loola ci darajaay maam fa Cerno Faati jël ndam la ka mu yoroon la jox Sëriñ Madun Joob ci darajaay maam Cerno Faati mooy ajiib foofee la soxna faati samba faatoo moom doom su góor sa ajabal moo yaatu maam Cerno dolli wax fa bamba ba mu toftal ta soxna fa di samba ñaari jigéen ñi Seex samba radiya anuma ali bamba koroog ba soxna loo mu baax ma faatoo la leen sëriñ ba bàyyi far nañ faatu koroog la car na mel ni gayndeeg mbooyo di wax ba daam fa bu soxna penda buuro am nañu doom ju tudd soxna faati ci darajaay maam car na faati bul jéema lim la car na wan Seex Bamba te waa këram moo doon bëtam di tànkam fekkoon na ceerno ne wax Abdoulaye Jaw ñi lay sangu kër gi atal beneen jaw Ahmadu xalifa rasuulillaahi Seex Mustafaa Bakkiyu Baabullaahi ca mooma Alla Bamba dem ba dem ndindi dem ku ndindi dox fattu ngir bëgg a leeri nga ne li Tuubaa maam Cerno faate fa desoon di kooba tax na fa xeto fa xasaw gu ga luy bëgga mat weet fa gisoon waa kër ga Cerno yoroon waa kër ga ak dongoom ya di jiite jàkka ja di jàngal dongoom ya loolaay lelu xalifal xatiim Cheikh Mustapha Mbàkke Muhammad doom loolaay lelu xalifatul xatiim Seex Mustafa Mbàkke moo mat doom Cerno si yoon ñun kon ndooy ca yor moo ko yëgal Seex Bamba ko këley góor Bamba na Cerno nanga ko wax borom maa ngi ci xalwatu damay liggéeyal saam Bamba na Cerno nanga ko wax borom maa ngi ji xelwatu damay defar si leeg saam keroog la Cerno yónni Abdul Xaadir moo jëndi gàtt ak torog ci saayir sëriñ Mamar Jaara ko tudd xadwa fa tudde ko boppam bambana ko Mustaba bis bam tuddee ba yooma asoora la bamba ji si leeri Tuuba mu leer muro a bisub tudam ba yooma asoora la bamba gis tuuba mu leer woon ah Seex bamba topp leer ga jël tuuba tuuba leeram ga jël na ba booba di lee taxoon Seex Mustafa mu am tuuba leerum mbirum juddoo ma feeñal tuuba bamba dellu see la ko wax ma am cernu ñu daal toj àll ba gor mu nu Seex mu dundu mbe woolu mboolem quartier ya Seex Bamba rëdd jàkka di ca ximla ya Seex Bamba tudde bépp gawoon fa Tuuba sajaratul saada la tekki booba boobee la dey maam Cerno Xalfa aada ne ko filey sama mujj saada bisub koroog la Bamba wax borom saam ne ko juma dina fi am fileeg dira saam bisub koroog la Bamba wax borom saam ne ko juma dina fi am balaa saam bisub koroog la Bamba wax borom saam ne ko juma